jërëjëf wax dëgg yàlla Seydou mi ngi nii toog waaye Seydou da nga bërki démb da fee wax wax joo xamante ne nii Sénégal gépp tiitaange na nu am wax ji nga wax mooy lu mel ni bi yàmbaa nga ne kat nañ ko jël nañ ko autorisé ci réew mi dugg ko ci ay boutique ku ne mën cee am accès di ci tux est-ce que loolu yenu na maanaa waaw mais loolu si nekk loolu dara nekku ci mais loolu xam nga xam nga am na loo xam ne euh, Bour Gueweul am na loo xam ne buñ ko fi nekkee indi débat rek indi coow gis nga yàmbaa gars yi ñoo ko yóbbu mm. fu mu eggul waaye tubaab yi ak américain ak latino-américain yi xam nañu njëriñ gi nga xam ne moo la am mm-hmm. yow bi ñu ko commencé dégg ñuy wax waxu yàmbaa boobu ba léegi tey tey tey tey tey te nit ñu bàyyi ko am ci nekk man li ma wax du man maa ko proposé man dama ne ñun ànd nañu pour cautionner noonu su ko defee mm-hmm. xale yi nga xam ne dañ leen di jàpp ci benn joint wala benn corne di leen tëj ci kaso ba mu fees dina tax affaire boobu wàññee ko ba léegi ñu mën a xool ñi nga xam ne ñoo ko war a jël ak ñu ko warul danoo war a xool ñu ko war a jël ak ñu ko warut a jël waaye tamit bu fekkee da indi lu toll nii baat bi baat bi yàmba nga xam ne bokkoon naa ne 16 21 yaa ko gën a gaaw am na ñoo xam ne bu ñu ko tuxee mari di taaliment suba daan dañuy seen seen sogo am ci ñoo xamante nii dañ ci am inspiration yow noo xam noo def ba xam ni jàngat yooyu am na ñu ciy faju am na ñoo xam ne dañ koy jël parce que dañu war a faju ñi am problème insomnie bëgg nelaw nelaw profonde ñu am sommeil profonde am na ñoo xam ne du judd nañu ba génn àdduna mosuñu gént te loolu baaxul. mosuñu gént. te loolu baaxul nit dafa war a gént. Mhm. dafa war a gént man Seydi Gassama laa tudd. Mhm. làkkat laa du ma wax waxu caaxaan. am na boo xam ne. Mhm. dafa wert. dafa wert bu wert bi. dafa wert waaw boobu. bi doo ko deferee. waaw normal boo ko jëfandikoo. da ngay normal. da boo ko jëf bu verte bi. waaw moom daal boo ko jëf bu fekkee da nga normal boo ko jëfandikoo da ngay normal. da ngay normal. ok dafa am beneen. dafa am beneen boo xam ne dafay faj. mooy moo li muy faj ku ku mu dal yaa ko xam boo demee ci médecin bi. Mhm. mu prescrire ko. waaw ñu ne a dama nga jël ñetti ficelle yu yàmbaa nga tuxoo. ñetti ficelle waaw. Eh, soo bañ na loolu boo ko defee. Mhm. da lay faj. da lay faj Amsterdam dañu ko légaliser. Mhm. London. dañ ko légaliser. su may lim dëkk yi nga xam ne d'accord nañu léegi ñu kii ko. loolu dara. mais mais bu <laughs> fekkee bu fekkee da nga da am ci bënn boo xam da nga koo tux ba noppi wax dëgg yàlla def ay monsieur Bakka di dóor ak daw di lu ne nga dugg ca est que boobu jar na tamit nit ko loolu laa lay wax ma ne nañ koo defar ba mu rafet yóbbu ko ci pharmacie ak ay boutique spécialisée ñu koy jaay. Mhm. buñ la ko prescrire doo ko tux. Euh, benn euh, ñaareel bi. Mhm. am na ay am na ay parce que loo gis am na dérivé. Mhm. dérivé yi nga xam ne moo ciy jugee. est-ce que xam ne graine bi si boppam. soo ko dëbbee boole ko karité boo ñàkkee karaw da koy da koy defar leel moo gaaw ci leel soo amee leel boo ko ci diwee leel bi dafay fees dell ak karaw kon yamba man bokk naa ci ñi nga xam ne bëgg naa ñu légaliser ko Sénégal parce que ku nekk ak li la neex d'accord wax dëgg yàlla ku nekk ak li la waaye day wax dëgg yàlla dama gis firi mi toll li li li nga xamante ni mooy président Macky Sall woote ni employé yow sa wàll bopp nga wur autoriser yamba est-ce que nekkul da ngaa bëgg a créer dof gu bari déedéet déedéet déedéet. créé woo dof non non non non bul wax dof affaire bi nekkul ay affaire dof. yàmbaa dama lay wax ne yàmbaa dara nekku ci. yaay xool ni koy. comme daal yow daal bu la askan wi déggee noonu fexe ba utiliser ay yàmbaa ci même réew ñu dem ci ku dem ci pharmacie yi fekk ko fa wala ku dem ci bitik fekk ko. loolu mooy loolu moo tax loolu mooy suñu xalaat ñun ñun ñun ñun waa forum civil man Seydi Gassama làqatuuma dama taxaw wax lu am. dama taxaw wax lu am mën na la laaj benn question waaw. yow da nga koo xam. dama ko. da nga koo xam <laughs> loolu du waxu télé <laughs> loolu du waxu télé. mais dama gis ma ràññee yi naan parce que dama dem wax ak borom xam-xam yi. ñu ne bu marron bi. bu marron bi. boobu baaxul. ah boobu ngay tux di mel ni saison temps. waaw kay. sa yaram dafay tànn bu marron bi. waaw at ban bu verte bi. bu verte bi. waaw boobu moo tane. ah boobu moo tane bi mooy di nga toog jàpp sa cent franc kenn du la. dugal ci loo buggul bo ah da ngay da ngay cool waaw nit mun na taxaw di wax ba suba yow da ngay taxaw fi nga taxaw parce que comprendre nga ok at ban da lay may jàmm da ngay reetaan da ngay actif waaw at ban am na boo xam ne bu amee nit koo xam ne dafay perturber day perturber di indi coow ci kër gi nga boyal sa ànd ne ko ci cëppat musuuru ko sa xaar si dem musuuru seytaane du ko munal dara waaw ndeysaan mbokk yi kooku ngeen kooku ngeen seen ndeysaan muy suud ah yamba dafa neex kooku ngeen dégg muy suudu wax dëgg yàlla décortiné na yamba jël wax dëgg mais grain bi dama dégg ñu naan ay grain bi day day indi karaw wax nga ko léegi joxe wërsëg sax grain bi nañ ko jogaale gis nga grain bi boo ko defee ci kalpe doo ñàkk grain yamba boo ko defee ci kalpe doo ñàkk doo ñàkk te dugub la boo xam ne soo bëggee sa ginaar di gën a jur waaw jox ko ko bu ko cofee ñaari yoon du toog du taxaw lu mu romb fàtt ko laa ilaha illallah yaa ngi bëgg a doonum seetkat de waaw wax dëgg yàlla Seydou wax dëgg yàlla li nga wax ba pare ma xamal la ñaar yar katu xar yi yarkatu xar yi xamuñu secret bi kon dafa am secret dugub bu yàmbaa bi dug grain bi eh. soo ci amee liibar jaxase ko repasse jox ko xar mi <laughs> mais Seydou gisoo ne yow da ngaa bàyyi nit ñi commencé dofloo xar yi mala yi. na <laughs> tamit mala moo yow sa kër toxloon comme yamba mu mel ni. tamit Seydou xoolal li ngay wax. benn yàpp bi dina nooy. day nooloo yàpp la ilaha illallah dana ko jox kattan dina ko jox kattan xar bi bu amee doom ci boo xam ne dafa lekk grain bi yaay ji lekk grain bi xar bu góor bi lekk grain bi waaw xale bi li mbote liir bi bu juddee day am taay bët yi day taq la ilaha illallah est-ce que day leeral bët ndeysaan gis ngeen su dégg na na am yàmbaa dafay yokk karaw ba pare day day yokk sa taar kon nag askan wi dégg ngeen ko noon man na caam waxuma ko eh. suy doo ko wax ñaar laa lay xamal jaaykatu cuuraay yi. jaaykatu cuuraay yi ay ko nokos. ay deeko nokos ay bul dem bul dem. am sa yamba bi verte bi boyal sa ànd. waaw del papier ñoom teg ko ci. waaw mooy custu si kër gi neex na neex goo xam ne jàmm rek mooy am kenn du xuloo yamba dafa neex de. Seydou des na tuut nu wot la réunion yow. Seydou ah déedéet nu boote réunion. ku nekk ak li la neex. ah damaa xam ne <laughs> ay nemmeli. niil mi jugal wuy sa ko def sama kër ma dóor la. ndax saxaar boobu tuberculose da te yamba bi mooy gën a neex si sa biir laay laay kon déggu leen kon Seydou ngi noonu Seydou ngi noonu wax yamba dafa neex yamba neex ah. nañ <laughs> buñ ko da buñ ko da nga ne di xam ne moo neex nga waay yow suba nga naan sa sa yamba nañ ko daganal Seydou maa ko wax man Seydi Gassama ay na neex na neex na neex na dagan bu leen ko bàyyi dox leen dëkk bi ku doxul doof ñun ñëpp dof nañu te doxuñu yàmba kon nañu ko dox wér